ya ilaahi yaay da shahri mooy weer wi yëpp la laa dundal bu weer yu masaa ñëw itam danaa wax ne mboolem luy tayal ak luy wéradi day daldi di dañ ci moom yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali adhabta qataan maradi wa kasali daana waxit lu bare bari ne li mawlidil muxtaari sirrun yukkatamu id sawnuhu anil wara yanxatimu mooy mawlid guddi gàmmu am na sekkare yu ci ne yoo xam ni des kuy nëbbu ndax istawnuhu anil wara yan xatimu dañ ko war a jàngal nëbbu ko ba ñi ci wërta jot duñ ca jot moo la xam ne kon guddi gu réy la gu am ay ay mbir la bari na yu sëñ bi wax it ne ci laa ko amee moom Mawlidul Muxtaar guddi gàmmu gii nii loola moo naa cee wax lu bare bare bare ci ay bëyit gàttal gi mooy li wax ne gàttal gi mooy li wax ne lii awsala li tanzimu mawlidil bashir jumlatama fi kutubi lahu usir maanaam mawlidul bashir muy guddi gàmmu gii nii lépp li may junj ci ay may ci sama téere yi ak sama mbind yi ci laa ko amee maanaam kon guddi gu rëy ci lañ nekk guddi gu màgg ci lañ nekk guddi gu am ay ngëneel ci lañ nekk Sëñ Tuubaa ci loolu wax nañu xéewal yi ci ne wax na ne taadimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisin muazimi maanaam màggal ko teg ko ci sunna mooy ni ko Sëñ daa màggal dinaa ñëw léegi Sëñ Tuubaa ni mu ko daa màggale weesuwut ñuy jàng alquran ak di jàng xasidaam yi nga xam ne da ko def ci tagg yonente bi alayhi salaatu boole ko téere barzan barzan ji boobu bi nga xam ne day waxtaane siirab yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ganek àdduna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ay meloom ak i jikkoom nii ñu ko defee ci Daarul Muxti noonu rek lañ ko daa defee ci jamono Sëñ mooy ay kuréel ñetti kuréel lañ ko def fii ci dëkk bi boo xam day jàng jës ak boo xam day jàng mawahibul an-nafi' ak boo xam ni kuréel boo xam day jàng muqaddamaat bu ko defee ñu boole kook barzan bi di ko jàng ci diggale bu kee jàngee fukki bayit wala fukki bayit ak ñaar kuréel bële kuréel bu ne jàng fukki bayit ak ñaar ñu teg ci wax ab bunt ca barsan ji ba daal di wax salaatu ala nabi yooyu ñu ci def xattari allahumma qabrahul karim bi xarfin saziyin min salaatin wa taslim allahumma salli wa sallim alayhi wa barik alayhi doog a delluwaat nag ci jës bu fukki bayit ak ñaar moo waxi bu fukki bayit ak ñaar wala fukki bayit muqaddamaat noonu doog a dellusiwaat ci barsan noonu lañ ko daa defee ba fajar jot mooy niñ ko defee fi ci dëkk bi rek bu ko defee itam biir loolu it sëñ bi daa waajal xéwal yu bari ci bis bi di ko jox ñi nga xam ne ñoo ko teewee wax na ne bu masaa ñëw moom gàmmu doo ko xàmmee doo ngay laxasaa yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy joxe xéwal yi daa takk ndiggam ci njëlbeen sax di jàng xasida yi ngir dundale ko guddi gi kon loolu dañuy tegtal rek ne guddi gu am solo ngi ne guddi gu rëy sëñ bi wax ne faman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda fala yuhaasabu gada maanaam guddi la goo xam ni boo ko màggalee kenn du la xisaab yowmal xiyam loolu daaw waxtaan nañ ko fi yooyu yu mel noonu dañ koy romb nun te seetlu wuñ maanaam liñ ci wax xisaab képp ku am jafe-jafe yowmal xiyam loolu la fa téye li yoonte bi wax ne bala ngaa jàll dañ la laaj dërëm boo mas a am noo ko amee ak noo foo ko jële ak noo ko fa jëlee ak foo ko dugal ak noo ko fa dugalee lijjanti boobu ñuy lijjanti mbiri jaam ñi ëllëg mooy ñi liitee nit ñi nga xam ne sa lu baax bu ëppee dañuy calculer li nga mas a def lépp ci lu baax ak li nga mas a def lépp ci lu bon lu baax li bu ëppee nga jàll lu bon de nag bu ëppee nga dugg sawara suñ doo wax ne guddi gi nii ñu nekk nii boo ko màggalee kenn du calculer say mbir waaw duñ la lijjanti ci yow dara falaa yu xaasa bu xada waaw dara gënt rëy lool ni ko noonu la waxee ne fa man yuazim mawlida bara baraya ahmada fakka shahidin shahida badran bi xayri waxami maanaam képp koo xam ni màggal nga guddi gii nii ci anam gi ko sëñ bi waxee nee na mel nga ne ku teewe badar te badar xam ngeen ni sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam salallahu alayhi wa sallam da cee wax ci loo xam ne xëy nett nañ ko fii ci jataay bi ba tey mooy ki ñuy wax xaatib ibnu abi baltaa ba ñuy ubbi màkka te yonente bi alayhi salaam ñaan suñu boroom waa màkka bañ cee xam dara mu digal jullit ñi itam bu kenn wax waa màkka dara ñu jóge ma Madina dox ba jub màkka te waa dëkk ba yëguñu ko ki ñu wax Xaatib ibnu Abi Baltaa nag moom bindub leetar ci suuf di ko yëgal waa dëkk ba loolu bu dee ci ñaari armée yu war a yu war a xeex xam nga ne war lañ ko jàppe yow noo ngi ànd di di di di dem ci sunu noon ngay bind su xibaar yi sunu waa côté bi ak sunu waa armée bi di ko jox ñañ jëm loolu ak war lañ ko jàppe te loolu ci armée yëpp ba ci armee yu yees yi ni jamono jii ni ku ko def faat lañ ci xam faat la xaati bu nu abi baltan bi mu defee loolu fekk yàlla xamal na ko ko mu yebal Seydina Aliyu mu dem jàpp soxna sa nga xam moo yoroon lettre ba biñ ko indee ci gàttal rek ba woo xaatib ibnu abi baltaxa ci kanam yonente bi aleyhi salaatu salaam yonente da ko laaj lu tax nga def ko mu ne ko man defuma ko ngir wedd yàlla wala ngir dara yàlla xam na ne tey laa gën a gëm tey laa la gën a gëm tey laa la gën a bëgg tey laa gën a gëm yàlla itam li tax ma def ko mooy waa Makka yéen ñi ñëpp kenn ko dafa ami mbokk te man awuma fa mbokk te su fekkee ne dem nañ fa xeex ak ñoom wala bu ca dara xewee leneen man mi nga xam ne awma fa mbokk kenn ku ma yiir du fa am maanaam bëggoon a leen defal loo xam dana tax ñoom ñu jàpp loola ba man maa yiir xoole loolu xool loolu ci man moo tax mu def ko fañ koy waxee nag naa Omar daa xaacu rek wax yonte bi ne ko bàyyi ma ma ma dog baat bi ma ma faat ko moom naafiq bi yénte bi ne ko bul bul waxati loolu kii du ab naafiq kii dafa fekkoon badar te xanaa xamoo ne waa badar yàlla xool na leen bëtub yërmande wax leen ne leen lu leen neex man ngeen a def man ngeen def jéggal naa leen dootuma leen topp bakkar parce li ma bëggoon indi rek mooy loolu ci gatal mooy waa badar yàlla ci moom moo leen defal li ñuy wax mbaay yàlla nga xam luñ mën a defee du teeñu dem na Sëñ Tuubaa nag wax ñu ne guddee ngi nii koo xam ni fa man yuazim mawlida xayril baraaya ahmada fakka shahidin shahida badran bi xayri wahami maanaam yemoo ci fekke badar waaye da nga bokk ci ñafa faatu boole ci te ña faatu xam ngeen ne yàlla moo wax ci alxuraan ne wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan maanaam ñooñu deewuñu ñuy dund lañ fa seen borom tabaraka wa taala mooy ñoom suhadaaw yi xam ngeen ne mooy ñi gën a kawe martaba ginnaaw bu yonente yi jàllee ak siddiqun yi te sëñ bi wax ne guddi gi boo ko màggalee ni ñu ko waxee ni da ci am yoolu ku dee ci jihaad ca badar boole ci nekk noonu sëñ bi waxaat na ci yu bare bare wax na ne fa man yuazim mawlida fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusharrafi maalan bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yawma xunaynin wa sabar wa yawma badrin wa nasar xeeral wala mu fahimi maanaam képp koo xam ne nee na def nga dara ci bis bii nii donte benn dërëm la nee na yow mel nga ne ku fekkee bisub xunayni xare boobe boole ci ña àndoon ña taxawoon ca wetu yonte bi aleyhi salaam bari ci ci yéefar yi dañoo dugg ci lislaam keroog bi yonte bi ubbee Makka bis boobu wax na ne ñaari junni nit dugg nañ ci lislaam ginnaaw ba nag giir yi nga xam ne ñoo dend ak makka ñoo dajaloo muy hawaasin ak yeneen giir yi ci des yëpp ne nañ faagaagal jullit ñi moom bala ñu fay gën a bari doole. xeex boobee nag lañu ñuy tudde xunee ni ñu daje ko ci bërëb bu ñoo wax xunee ni nga xam ne keroog yéefar yi dañoo jekku dañoo jekku jullit yi nañ leen jekkoo mooy dañ leen a jiitu ci bërëb bañ fanaan muy xunee ni xur woowu dañ leen faa jiitu làqatu ci garab yi. bi jullit ñi ñëwee ba agsi fi ñu jekkee fenn fu ne ak fett di fa di dikk ñuy jam jullit ñi ñu bari nag daal di daal di arrière daanu ma dellu ginnaaw daw keroog ñi dawoon mooy ñi nga xam ne ñoo mujjoon a gëm rek nga xam ne seen gëm xëy na dëgërul lool waaye ñë ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooñu daw mukk ila yawmi din keroog nag ñi xam ne ñoo àndoon ak bi muñ dawuñu delluwuñ ginnaaw la sëñ bi wax ne màggal guddi gi di nga ci am yoolu mel ne ku fekke woon loolee ba pare bokk ci gaa yi nga xam ne ñoo delluwutoon ginnaaw moo tax lii ak yeneen yu bare bari sëñ bi wax wax na ne ixyaau mawlidil basir yaxmil iyaala wa duyuur fiihi shifaaun li sudur li kulli haadin yentami barakallahu fiikum loolu rek ba tey ba tey ba tey teraanga la joo xam ne mi ngi ci mi ngi ci màggal guddi mooy sag njaboot yàlla da koy aaral sa kër jafe-jafe yu yàlla da ko fay dàq xam ngeen ne nit ñi am na ñoo xam mën nañu yor sax xaalis bu dul jeex alal ju dul waaye seen kër bi seen ay jafe dafay bari ñu bari njaboot seen njaboot di wéradi ñu yóbbu hôpital dem ak dikk nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne kenn du ko mën a lijjanti màggal guddi gi nag sëñ bi daa wax ne yàlla bokk na ci lim la ciy defal ci ki ko màggal mooy fegal la problème ak jafe-jafe yooyu nga xam ne moom mooy mooy dal borom kër yi kon guddee gi nii goo xam ni gu rëy la gu màgg la gu am daraja la ca suñ borom tabaaraka wa taala sëñ Tuubaa yii mu ci wax ni yàlla ko ko xamal mu baaxee na ko ngir bëgg nu am ci yiwu màggal guddi gi bu ko defee itam foofu xëy na mën naa am sax am boo fekkee am na am na ñoo xam ni dañ lay bëgg a laaj waaw yooyu luy tegtal bi ci alxuraan wala ci sunna si bi alayhi salaatu salaam fekk xeeti njariñ yi nga xam ne moo nekk ci bis bi day loo xam ni yàlla moo ko xamal sëñ bi mu baaxee nu ko nun ñi nga xam ne ay ñooy waa këram ngir bëgg nu nu jariñu ci bis bi ak yéenu nu aw yiw ndax sëñ Tuubaa day wax ne moom laabire gi ma leen di laabire bëgg leen. ak bëgg ngeen mucc moo tax ma koy labiré ma leen koy labiré loolu wax na ko ci bërëb yu bare bare bare bu ko defee yooyu kon duggul ci ay ay texte yooyu mbir la yoo xam ne yàlla koy xamal sëriñ bi mu baaxee nu ko loolu itam buntu la boo xam ne bu wér la ci ci charia mooy dafa am yàlla dafa ay niti boobu yoo xam ni dafay séq ak ñoom loo xam ni diggam ak ñoom rek la te itam ci kaw ba maanaam machiatullahi coobaree suñu borom ci la ci la ci la tënku ci la tënku maanaam yaxtassu bi rahmatihi may yashaawu maanaam ña ko neex la tànn xamal leen li ñu allamnaahu abdan min ibadina allamnaahu min ladunnaa ilman maanaam xam-xam yoo xam ne da ko beral ay gaa yi boppam yoo xam ne moo leen tànnal boppam nga xam ne texte tënkut tënkut loolu duñ ci loolu ay texte du ko du ko du ko jàngale du ko xamle loolu rek laa bëggoon a gàttal ci wax ne kon guddi gu am njariñ la moo tax sëñ bi tënk ko ci wax ne li mawlidil muxtaari sirrun yuktamu ij sawn ij sawnuhu anil wara yan xatimu guddi gi am na secret yoo xam ni dee si koy nëbbu ndax wax gi day day man moom jaaduwut dee si ko wax ñëpp ñëpp waruñu ko xam loolu day tax sunu bëgg ak sunu pëstéef xam naa yokk ci bis bi rek lañ jublu lañ siñ bi jublu ngir ñu gën a góorgóorlu ci dundal ko ci ni ma ko waxoon léegi rek na temps yi moo bi sunnati yaqdu naa lil jannati sëñ Tuubaa noonu ni ma waxoon léegi noonu rek la ko daa maggale ginnaaw loolu ma leeral tuuti rek ndax lu mel ne ginnaaw suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jógee Mafatihul bisiri te xëy na dañ ko tasaare te ñeneen dañ ko diglu ma leeral ci ne guddi gii nag guddi la goo xam ni mooy mawlidu nabi nun li Sëñ Tuubaa wax sikkuñu ci benn benn benn xaraf gëm nañ ne nam ko waxee noonee la ame te noonee la wére fa sunu borom ko wa la ak yonente bi alayhi salaatu waaye xam ngeen ne am na ci jaam ñi jaam yoo xam ni yàlla leen nattu ak seeguñ moo tax ñooñu it war war nañ war nañu bàyyi xel li ma bëgg wax dëgg-dëgg mooy ci jamono jii nii dafa am woote boo xam ni bu ñëpp xam la muy woote ku ñuy wax Muhammad Ibnu Abdul Wahab dëkk fële ci Arabie Saoudite yàlla dogal moom ak ñi ko topp yu bare bare bare bare ci li ni def dañ koy sikk ndax ñàkk xam fu mu tegu lay cosaanu mbir ma dëgg dëgg sax nag mooy ñoom dañoo mm, dañuy day ñaari mbir mooy réew ma dafa am buur yu fa nekk buur yee ñoo lëkkaloog njabootu sëñ boobu ma wax léegi ngir tëral loo xam ni ara maanaam mooy li buur ya bëgg ci gàttal nañu soppee tur réew ma nga xam ne léegi fi ne ñëpp arab al arabiya saoudiya la ñuy wax saoud mooy baayu Muhammad ibnu Saoud nga xam ne réew mi dañ ko tudde seen baay noonee lañ soppe lu bare bari ci diine ji nga xam ne lépp luy ak màggal ci yonente bi alayhi salaatu salaam dañ koy aaye ci gàttal yonente bi ñoom am na ci ñoo xam ne sax dañuy wax ne bul wax sayyiduna ndax sayyiduna ak màggal la dañuy wax ne as sayyidu huwa Allahu loolu foofa réew ma boo fa demee leen rek lañ fay màggal mooy buur ci misaal boo nee naa ñaan ci barke bi yonente bi ñu ne la loolu it xaraam na. kenn du ñaan ci barke yonent bi waxuma laa nag keneen sëñ Tuubaa ak ñeneen boo dee naa jóge fii siyaare ji xabru ba ñu ne la loolu xaraam jàkk ji la ñu siyaare waaye kenn du jàkk siyaare xabru ba soo nee naa màggal guddi gi mu juddoon muy guddi mawlid gi ñu ne la loolu xaraam maa loolu ba teyit dañ ko aaye ñaari wajur yonent bi sax ñu ne la ñoom ñëpp ña nga ña nga sawara noonu lañ ko toppe ba boo seetloo yooyu ñuy diingat nga xam ne moom lañuy ñuy lépp dafa aju ci màggal kilifa te réew ma buur yee ñoo bëggut ku màggal kilifa ndax bu ñu leen dee màggal bu yàggee ñu màggal seeti yonente ba te ba mën a jot ci nguur gi loolu la bëggoon leeral ci gàtt ne loolu duñ ci taxaw lu yàgg ndax mbiri politique la moo ko lal waaye nag baax na nu xam bu baax a baax ne lii nuy def nii lu am cëslaay la lu wér la ci diina itam mboolem yi ma fi wax muy wax sayyiduna Muhammad loolu dara gën ko sax ci diine xam ngeen ne sayyiduna Saad ibnu Muaas ci xaswatu bani Qurayza keroog ba mu agsee xadis bi ma wax ni imaamul Buxaari ak Muslim ñoom ñëpp nettali nañ ko wax ni keroog bi Saad agsee yonent bi wax ne qoomoo li sayyidikum maanaam leen taxaw ndax seen sang bi Saad ibnu Muaas moo agsi kon ginnaaw wax na ne kooku sayid la ab sang la te kooku yonente bi alayhi salaatu salaam mooy kilifaam dib sëriñam kon wax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy loolu cëslaay la ci ak yeneen ak yeneen yu bare bari yu kenn xamut yeneen yi ma wax it yëpp noonu noonu la demee muy ñaan ci barke bi yonente bi alayhi salaatu salaam sayyiduna muhammad yow moo ko njëkk a def yaa ngi dégg ci ay bërëb yu bare bare bare bare bari ñaan ci darajaam moom ñaan ci daraja yi mboolem yonente yi ñaan ci daraja yi nit ku baax ndax booy génn dem ci jàkk ji sax gis nga ñaan gi Seydina wax Muhammad wax dafa wax ne bi xaqi saa ilina lëkk mooy saa ilina mooy mboolem ñi ñaan yàlla rek ak nuñ ko mën a ñaane ci ñoom la yàlla la la yonente bi tawassul ngir yàlla nangu lool ak yeneen yu kenn xamul bind nañ ci téere yu kenn xamul nu mu toll bu dee nag guddi gi nag di guddi mawlid moom li ci nekk ci cëslaay daa bari bokk na ci lenn rek lu gàtt loo xam ni loo xam ni imaamul Buxaari moom yi nettali na ko ak ñeneen ñu bare bare bare bare bare bari te mooy guddi gi nga xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi ba mu ganee àdduna ki nga xam ne mooy Abu Lahab Abu Lahab mooy baay bu ndaw bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi àdduna dafa am jaamam bu jigéen bu ñuy wax sooy ba bokk na ñi ñi nàmpal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba moomee dafa ñëw di ko xibaar Abu Lahab ne ko sa doomi eh, sa sa sa sa doomi mbokk ma de am na gone maanaam xamal ko ne ko Seydina Muhammad gane na àdduna Abu Lahab bég ca bég a bég a ba ne ko yow goreel naa la léegi nekkatoo jàmm gor nga libéré ko loole bi Abu Lahab faato dafa am kenn ci ay mbokkam koo gis imaamul Buxaari turu turo waaye eh, imaam Suhayli moo wax ne eh, Abbas ibnu Abdul Muttalib moo ko gis ci gént laaj ko ne ko ci loo nekk mu ne ko man dey nekkuma ci jàmm ci mbugal mu mett laa nekk ndax Abu Lahab yàlla dogal xam ngeen ni bàyyi bu ndaw bi yonente bi la waaye ci ñi gënoon a sonal yonente bi ci la bokk bi yàlla digalee yonente bi ne ko li ngay woote nii nga wax ko ca kaw xam ngeen yonente bi keroog dafa taxaw ca kaw doju safa mooy ci montagne wi tiim dëkk ba laaj leen yéen waa dëkk bi su ma su ma leen waxoon ne leen am na ab armée bu nekk fii sama ginnaaw di leen waaj song si ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw loolu ko boo ko waxee dinañ ko gëm ndax yow mësuñu laa xam ci wax lu amul loo ma sa wax rek dëgg la mu leen leen nag loo kon nag maa ngi leen di xibaar ne yàlla ci boobu moo ma yónni ci yéen bëgg ngeen bàyyi jaamu xërëm yii nii te di ko jaamu moom yàlla subhaanahu wa taala wax wax ba àggal Abu Lahab keroog moo ne ko tabban laka saa iral yow maanaam yow tus kere nga lii rek nga nga nga nga ñu dajale ñun waa dëkk bi yëpp gis nga ca la alxuraan wàcce saar woo xam da ko ci tëkku tabbat yadaa abi lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran daata lahab abu lahab daraa dara def fu yonte yonte bi dara topp marché yi ak bërëb yi ñu daje di leen dem di leen leeral diina ji waaye fu masa dem da koy topp bu waxee ba àggal mu jël kàddu gi ne leen kii sama dooma maa ko yar waaye xel mi ci bopp moo neexul li muy wax bu leen ko bu leen ko dégg loolu muy def loolu mu def moo tax yàlla tëkk ko ci alxuraan waaye abbas ibnu abdul muttalib da ko gént ginaaw bi mu faatoo gis ko mu ne ko nekkuma ci jàmm waaye fi ne guddig altine gu ne danañ ma génne woyofal ma as tuut mbugal mi doog maa dugalaat biir sawara am na beneen riwaaye boo xam ne daa ne guddig altine gu ne danañ ma jox ndox su sedd jaarale ma ko sama baaraam si ma mos ko ñu ñu doog maa continuer mbugal mi ne ko loolu nag li tax ma am ko mooy mbég ma ma bégoon ca ba yonente bi alayhi salaam gane àdduna ba goreel ca suway ba ba moo ko waxee loolu moo ko waral loolu nag borom borom xam-xam yëpp maase tegtaloo ci ci ne ginnaaw kii benn bis la la la la la la ci rasulullah sallallahu alayhi te mooy abu lahab mi ñëpp xam alxuraan tëkk ko te altine bu ne des na ko defal ak wayafal ca mbugal ma ngir mbégte mooy mu ca bëggoon kon kay jullit ñi nga xam ne at mu ne ñu bëgg ci guddi gii gi mawlid nabi sallallahu alayhi wasallam loolu am amuñu sikk ci moom la leen yàlla di fay kenn du xam nu mu toll ci ay daraja ki ñuy wax Shamsuddin ibnu Nasiruddin Dimashqi da ci def ay bayit ci téeram bi mu tuddee mawlidu saadi fi mawlidil haadi wax ne ida kaana haada kaafiran jaa dammuhu wa tabbat yadaahu fi ljahimi muxallada ata annahu fi yowmi lisnayni daa'iman yuxafafu anhu lissuróori bi ahmada fa ma dannu bilabdi alladi tuula umrihi bi ahmada masruran wa maata mu muwahida maanaam kee ab yéefar la benn mbégte mu mas a ci ci kaw suuf ci juddug yonente bi alayhi salaam lañ ko defalee at altine bu ne semaine bu ne ñu génne ko woyofal ko tuuti mbugal mi doo ko la nun ñi nga xam ne waxtu ne noo noo ngi bég ci yonente bi alayhi salaam kon kenn waxut waxut suñ mbir rawatina nag murit yi nga xam ne ñoom yéemuñu ci yéemuñu ci benn bis boobu xam ngeen ne sëñ Tuubaa wax naa léegi ne weer wépp la daa daa la maase di ko màggal ak di ko dundal daane ila daane ila ihya i da shahri mooy weer wépp yëmutoon ci weer woowu itam fi mu ne boroom daalu waxtu mi xam ngeen ne sëñ bee ko digaloon altine bu ne guddik altine gu ne mu di ko màggal loolu mooy indi bërëb bii ngeen xam fii ci dëkk bi ñu tuddee ko mawlid la ko ñeen ñi wax waaye mooy mawlid mooy guddik altine bu ne mag ñi daje fa jàng xasida ak ak ak yëkkati ko dundale ko guddi gi mooy ay ay bés gën a semaine bu ne ñu dëkk ci di gàmmu kon loolu rek doy na tegtal donte xëy na waxtaan nañ ko lu bare bari yeneen yu bare bare bari yoo xam ne mas na ko tegtale mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ci moom danaa woor bésu altine biñ ko laajee lan moo tax ak foo teg ak lu tax ngay ngay woor bésu altine mu ne mu leen ci laa judd moo tax ci laa gane àdduna loolu tegtal la ci màggal bis boobu bokk na ci itam liñ ci mën a tegtalu mooy yàlla wax ci alxuraan yonte bi ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamina yàlla la yabal nga nekk rahma lil aalamina yërmaande ci mboolem mbindeef yépp nit ñeeg jinne ñeeg doj yeeg lépp te yàlla wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika fal yafraxu mooy yërmaande yàlla rek moo mat a bégee moo mat a màggal moo mat a dund moo mat a dundal loolu ba tey tegtal la ci ak yu bëree bëri mooy yonent bi alayhi salaam bi mu ñëwee Madina xam ngeen ne dafa fekk yahud di woor bisub Ashura mu laaj leen lu tax ngeen koy woor ñu ne ko ñunkat dañoo gis ne ci la yàlla musale woon Muusa alayhi salaam labal ca noonam ba Isa loolu di xéwal gu mag ci nun moo tax ñu koy ñu di ko woor ngir sante ko yàlla yonent bi lam leen wax mooy ndax nahnu awla bi Muusa minkum maanaam Moussa noo ci noo leen ci gën a yay noo leen ko gën a jege moom mu yonente bi mu tàmbale di ko wor digal jullit ñëpp ñu di ko wor loolu tegtal la ci ne bis boo xam ne xéewal da ca am kenn ku ne sañ na ko màggal ci anam goo xam ni maanaam day tegtale màggal mooy ni ko sëñ bi wax tanzimo bi sunnati bi sunnati mooy nii ñu koy defe jàng alquran jàng xasida yi nga xam ne sëñ bi da ciy tagg yonente bi ak di julli ci moom ak di ci waxante ak suñu ak di ci wax may yàlla yi nga xam ne moom la ko yàlla defal boo demee ci ki ñuy wax ibnu xajar al asqalaani ci ba muy sarxu saxiixu muslim dafa wax ne yonente bi bisub gaaw bu ne danaa dem fi ñuy wax xubaa ak jàkk la bu demee julli fa doog faa jóge nag delluwaat madina wax ne loolee nag tegtal la ci ne ak jaamu yàlla mën nga koo wutal bis saa yu ñëwee bis ba nga di ko def mboolem yi ñu def ci gàmmu itam boo seetloo kenn sikk ko jàng alxuraan kenn ñi moo ko sikk jàng suñu xasida yi kenn ñi moo ko sikk defar ay ay bernde ak xéewal jox ko nit ñi loolu kenn ñi ko sikk yi ci des yëpp noonu loolee nag ginnaaw yi nga xam ne moo ci xew ci biir gàmmu kenn ñi mu ko sikk kon jëmmi daje gi ñu koy daje di ko def ku ko sikk dangaa ngaa xamul lu bari ci lislaam loolu dama noon naa ko ci dugal rek ndax ginnaaw jamono ji ñu toll dafa bari yu xew bari yu fi ñëw bari yu dugg si te ñi nga xam ne te xëy na seen xel neexut wala seenum njàng soriwut wala seen positif ci sëñ bi xay na kawwut lool ñu dañ leen dañuy neex a fëkk yal na yàlla musal ci dara fëkk nu ci daraja Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bu ko defee loolu daal mooy guddi gi di guddi koo xam ne sëñ Tuubaa ci moom ko fonkoon dalaa wax ne saadati adharaha rabiu al awalu alladi huwa rabiu wajjaha li mawlidu xayri xayri mursali xalaawatan tuxjilu taamal asali nee na weer wii di weeru gàmm dinaa ci yéeg mbégte moo xam ni moo raw ci sama xol neexiitu lem te lem mooy li ñu gën a mën a misaal ci kaw suuf ci li ñu misaal ak ak ak neexaayam dina wax ne weer wi yëpp diiru weer wi ci mbégte lay ne Sëñ Tuubaa mag ñi daa dañuy wax ne képp ko am yitte sax ci moom joo bëgg wala aajo joo bëgg mu fajal la ko dangay ngay ba ñu ci bari dañ daa bàyyi ba gàmmu jot bu gàmmu jotee aajo juñ ko wax mu faj ku ko njëkk a wax ne ko weer wi feeñ na itam dana la neexal neexal boo xam ni dana sedd sa xol dana kawe itam ci yaw danaa wax moom Sëñ Tuubaa itam ne faaqa rabiul awwali shuhura bi mawlidi alladi bada mashhura mooy weeru rabiul awal muy weeru gàmm wi moo kawe mboolem weer yépp loolu sëñ bi daw am na xasida goo xam eh, yi sëñ bi daa àgg ci di lim weer wu ne mu wax la ko rabi la ko la ko weeru gàmm defal xasida googu mooy gim tënk gim tënk fa man saa afal yumin wa man saa afal yakfur di wax ne farraha mawlidu nabi muharrama mallaka mawlidu nabii safara busharatan nafaa mawlidu nabi rabia al awal alladi uri yambua maanaam gàmm bisu gàmm bi la wax ne moo jox weer wu ne la ne ci yow noonu la ko limee wax ne maanaam bu dee muharram muy weeru tamxarit lam am ci mbégte ci bis bii la ko jële weeru safarit lim am ci ay xéewal ak mbégte ci bisu gàmm bii la ko jële weeru rabi muy weeru gàmm wi ci boobu sax li mu am ci njariñ itam ci bis bii la ko jëlee muy guddi gi nii sharafa mawlidu nabi rabia al axiri al axiri alladi ixtamal matbua wax ne itam weer wi ci topp ci weeru wi muy weeru eh, rakk ji gàmm lam am itam ci teraanga ak tedd nga yëpp ci ci guddi gii la ko la ko jëlee akrama mawlidu nabi jumaada fala yazaalu shakiran xamaada noonu la ko toppee rakk ji gàmmo rakkaat ji gàmmo itam lam am nee na ci teraanga ci weer wi ci bés bi ko jëlee atan nabi busharatan aatan nabi busharatan jumaada gadat biha bi fadlihi imaada faaza bi mawlidi nabiyi rajabu fawzan bihin qaada ilayhi alajabu lil mustafa nuurun ada saabaana qaada lahu min rabbihi qurbaana yaquudu mawlidu nabi li ramadaan fadlan aziman qad yudiimul fayadaan ba ci weeru koor lam am ci ay xeeti ngëneel ci bis bi la la la sababoo ndax yonte bi bu ñëwutoon dégg nga maam koor kenn du kenn ko xam alxuraan ji ñuy wax de su ko xam kon yooyu yëpp ci ci moom la sababoo waajaha mawlidu nabi sawaala bima bihi qaada lahu nawaala mawlidu ahmada ada dal qicda nawara mawlidu nabi dal xijja muy at mépp boo seetlu weer yëpp wax na leen wax ne yonente bi maanaam bisu mawlid bi moo leen tëbb Sëñ Tuubaa itam daaw wax naa ko fi mooy mbirum gàmm bu kenn jàpp yëfi tijaan yëfi murit la maa Sëñ Tuubaa mooy mooy ki njëkk a gàmm ci réew mi ci lañ xam ndax wax na ne ahyayitu mawlidan nabi min asasi asasi mooy mooy atum 1882 la tàmbalee gàmm mooy ba sëñ maam Mamour Ansari jógee ca déwén sa la tàmbalee def gàmm yëmu ca daa def at mu ne day bind ak xasiida ci gàmm gi da ko da ko ca la ko sasoo loolu la wax ne ahyaytu mawlida nabi min asasi ak mallaktu mawlida nabi min asasi kitaabati loolu ma man ko tàmbali 1882 muy 1301 at mi fi Mamadou Anta Sali jóge ci déwén si Sidil Xaaji Malik di di di di kenn ci góor yàlla yi ku baax waaye waa këram dañuy wax ne 1902 la tàmbalee woote kenn 1882 la ko tàmbaloon yal na yàlla defal tawféex yi nu am ci lu kawe njort mboolem lu sëñ bi digle yal na ko yàlla defal ci daraja sëñ Tuubaa mel na ne waxin wi ni ma ko toppee nii daa kii ba xëy na toftalawut maa ngi ci jéglu lu baax a baax a baax waaye loolu daal mooy guddi gi ci la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñ sëñ Tuubaa wax nañu la ca xew ci ay xar baax yoo xam ni ci guddi gi la xewe loolu rek wane na ne ba tey guddi gu guddi gu rëy la mooy bi mu bi mu xewee bi nga xamee ne Seydina Muhammad gane na àdduna sëñ bi daa xam ne xawat xawaariqa badat an ruwaati sabatat ka misli naari nutfi at maham mihaa i daqami wa ayni saawat allati qad azumat wa jëllati lil fursi qabla al millati wa suyirat kal adami wa kan qidaadi shuhubi tardan li ahli riyabi an sam'i axbaari nabi wa rajau bi turida fiha binnujum an samawati rajim wa farra xaasiran yulim bi xisbi idaaw kam sataa xiina wulida xayru nabiyin qad bada nuurun azimun qad yara bihi qusura qaysara maanaam yooyu ak iwaanu kisran sadaa mooy yonent bi xam ngeen ne ci waxtu fajar mooy wax ji gën a am nañu wax yor yoru bi waaye ci njël waxtu njël ci guddi gii nii feeñ soxna Amina moo doon wayjuróomu jigéenam moo moo doon wayjuróomu jigéen waxtu feeñee soxna ay soxna Amina wax nañ ne daana nett li ne bi bi mu gane àdduna moom yonte bi alayhi salaam dafa ñëw ànd ak sell sellte laab lool waaye bi mu gane àdduna rek dafa dal di sujjóot mooy dafa dëpp jëbi ci suuf loolu tegtalee sujjóot loole nag waxtu mu amee dañoo gis asamaan si ci moom walla boog soxna Aysa ci moom moo wax ne moom dafa gis leer goo xam ne dafa bawoo ci moom dem ci kaw maanaam leer goo xam ne dafa dafa dafa leer naññi naññi ba waa dëkk maanaam dëkk bépp mu gis muy leer weesuwul lool nee na ba ci pësoor a Qaysara maanaam leer goo xam ne dafa leer ba leer mboolem adduna sépp ci gàttal rek nga xam ne soxna soxna Amina moo ko nettali wax ne moo ko gis leer goo xam ne dafa gis mu leeral adduna sépp ñu gis asamaan si itam ay biddiw yoo xam ne dañuy fàq di dem ak a dikk buur yi fi nekkoon ci kaw suuf lu mel ne Kisra fale ba mu nekkoon yëngutu suuf si def tremblement boo xam ni maanaam jëmmi pale bi dafa dafa toj liñ fi doon jaamu ci kaw suuf lu mel na tey sawaraw waa sawaraw perse yi fay ca guddi googee bëtt ndox yi nga xam ne moom lañ daa barkeloo itam lu mel ne aynu lu ma aynu saawata daal di ñiis keroog ca guddi googee mboolem adduna sépp ay xew-xew am fi moo la xamal ne ki gane adduna du maanaam li tey guddi gi bokkut ak yeneen guddi yi ci ci misaal rek ci gàttal moo tax sëñ bi leer leeral nu loolu wax itam ne mawliduhu muazzamu mubaarakun muxtaramu taadimuhu yan xatimu ala dawi taqaddumi mooy bu guddi la goo xam ni ñëpp war nañ ko màggal ñëpp war nañ ko fonk ndax li ci ne ni ko sëñ bi waxee ci ay xewal bari na yàlla yàlla defal tawféex yi mboolem li ci sëñ bi wax ak li ci am nu nu nu nu am ca lu kawe njort naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li fetliwaat rek ne lii sëñ bi wax nii ci ay xéewal ci guddi gi xëy na doo ko fekk ci yeneen téere waaye yàlla ko ko xamal mu baaxewaat na ko radiyallahu anhu wa ardaahu xadis itam daanaa leeral ne xadis képp koo xam ne xamoo nu mu tëdde mën ngaa nekk ci njuumte da doo ko yëg imaamul Buxaari bi nga xam ne moom la ñuy wax téere bi nga téere bi moom lañ jàpp ne mooy gën a wér ci téere yi boo ko booleeg imaam muslim ma nga xam ne moo ci topp xadis yañ fa yañ fa indi yëpp matut fukki junni xadis boo dindee li yiñ ci baamu matut fukki junni xadis te am ci borom xam-xam yi ñu daa tudde xufaas mooy xaafis mooy koo xam ne mokkal na téeméeri junni xadis am na koo xam ne sax mooy amirul amirul muminina fil xadis muy imaam ibnu hajar al asqalaani mokkal na ñeenti téeméeri junni xadis maa xadis yee ci des kon fu mu nekk imaamul buxaari ginnaaw yonente bi la ñëw ginnaaw téeméeri at ak juróom-ñeent fukk ak ñeent mi 194 at moom hijriya ci la ci la gane àdduna dafa farlu ba dajale ay xadis ne yii moom am am na yaqin ci ne wér na topp na ña ko nettali ba ba xam ne li wér na mu dajale ko tuddee ko al jaamiu saxiix ku ñuy wax muslim def noonu imaamu tirmisi def noonu imaam ibnu majjata def noonu ak ñeneen ba muy ñu al kutubu sitta waaye ñooyu yëpp boo leen boole ñoom ñeent ñoom juróom-benn téere yëpp matut téeméeri junni xadis fukki junni xadis wala ñaar fukki junni xadis gën jaa bari te yonente bi maanaam ajjuma bu ne rek xutba yi mu daa xutba rek ëpp na xadis yee nekk fee Seydina Abubakar nga xam ne moom mës sa teqali ko yonente bi lim net li ci xadis yëpp ëpp ëpp ñetti téeméer xadis ak tuuti lu topp moo lay xamal ne kon bari na leneen lu wér loo loo yëgut ak loo xamut yàlla sàmm na diine ji ak yi ñuy jëf ci ay jaamu yàlla ci borom xam yi bind ko waaye itam bari na leneen yeneen yu wér yoo xam ni yow xamuloo ko yëguloo ko moo tax bu ñu amee ku mel ne Serigne yàlla xamal ko xéewal yi nekk ci bis bi mu xamalaat nu ko. loolu dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla itam mu génn ci mboolem adduna sépp ba ñëw bokk noonu xewal gi ndax kër ginnaaw mën nga cee jaare kenn du lijjën say mbir ëllëg falaa yu xaasa bu xadam mën nga cee jaare am darajey kus ku sahid ca badar ak xuneen loolu si dara gën koo kaw yàlla yàlla defal taw feexi nu am ko ci guddi gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.